pesal. pesal lekk. génneew pes bi génneew pes ma génneew <laughs> pes ma. su je ah ça va ma gën a pes ma doo ci yow pesal ngay raay. asalaamaaleykum sama gars yi bëgg naa leen j'espère que yéen a ngi si jàmm bu baax a baax a baax sama gars yi ma ñaan laal leen yàlla na yàlla defal sutura. xéwal ak xaalis bu bëree bëri da ngeen wax amin amin sama gars yi bété bété démb bi dama ko seetaan non bété bété bi bi passé dama ko seetaan dama reesa neex reesa neex reesa neex bu sama biir di meen ma ne non lii moom force dafa koy indi <laughs> fii nii ñu seetaan noo ko ndax di ngeen ree booy bëgg a dee séquence ko seetaan te reetaan noonu non doo nit quoi man loolu dina ma jaaxal da ngay jéem a tenir suñu reetaan ñu xool <laughs> dinañ dee <laughs> wala duñ dee sama gars yi balaa vidéo di commencer merci d'aimer la vidéo abonnez-vous fekk yaa ma seetaan te abonné go parce que fii nii bete bete rek la topp ak yeneen actualité yaa ma gën a xam samedi wala dimanche tamit wala vendredi mu leen dugalal vidéo mu leen fàtte yéen usé woon spécial sama promo code 21F la ça veut dire di nga am boni cent cinquante six francs lien bi naa ko def commentaire yi nañ bi duuru demee di seeti jabar ji <laughs> <laughs> bu mu ko defaate bi nii nag gis ngeen nice na quoi fàllu wotul wotu wotu wotu naa wala. mais déggoo ma de du ma teg du ma bougé. du neen day am am lu fit. neen de saa neexee ngi nii. lu xew fii. papa. waaw. maa lay siy yaakaar ko jël. lu xew leen commencement bi duudu ak fulla bi ak fulla bi. dara dara ngay xiin xiini nii lan la. duud neen daa indi fulla de. maa ngi sant yàlla. waaw lu ngeen di taxaw ci mbedd mi. man lay seet si. ah dama ñëw fii dama bëgg sama jabar. ah. <laughs> ne daa am ful la de. jéem a ba tax d' accord d' dugg. ay ay kàcc. tourné ne am la fit naan day ñëw dootoo dem <laughs> da nga am la fit naan day da dugg waaye dootoo dem gis toogal ak sa kër yàlla Sanex bëgg gis waxtaan ak moom. ah Dieynaba ngay fulla fi toogal ba Sanex fekk la fi. duur dugg na dalal na ko xola iri. Vai sana vungofika yebono ko khu ko let. Yo saka di nola lewe jo Apa apa. apa? Sabai ang kade. Mong jam marlon. Mor daw. apa? yow ñu lay wax sa waxi bàyyi ngay lijjanti jigéen xam naa nag loolu yow nga am fit ñëw di àggale si ndax gàcce day topp gannaaw sa baay àggalewul woon loolu xam naa da ngaa ñëw ngir àggale sew man li ngay wax dafa jiitu nii sa dund boo ñibbee jàmm bu fekkee ñibbi fekkee ñibbi nga ne ko damaa teefi woon jay na ba kër bàyyi ñu xooleen fi xooleen fi xooleen na ba mat la baay mat sa baay di wax ak yow nga may wan gannaaw nga ñibbi ci xotti taat nga bëgg. ci xotti taat am na ci faar am bokk taat. papa dimbali ma fi ñëw. am kenn ñii nan lañ def ba zéli te reetaan nañ. man damay rey. Dieynaba Tall. Doudou su doon maa yow Dieynaba Tall ni mu mel damay taxaw assumer. yow xam Doudou dafa mel ni yow tamit xoolaatoo sa jabar ji ay balu pistolet man su ma woon jabar mel ni Dieynaba Tall balu pistolet du ma dawloo de. <laughs>

li ma soxla. jàmbale. saa neex nu niir waay. li may wax ngay wax asi. Ah. dëpp. papa bàyyi ma def yow tamit. waaw dem moom waaye jël ma lève papa. dëpp asi. asi. asi dëpp. papa ngir yàlla saa neex ngir yàlla. asi bàyyi ma def ngir yàlla sara ma dootuma fi ñëwati. toogal. sa papa choix jour woon daa jot a daw léegi da ngay jël bal ci xotti taa.

pes ko jeere ba pes ko jeere ba pes ko mu naan ko xoolee xoolee man sama reetaan dina jeex barki yàlla wal ba tigul xoolal jaay na moo la fi indi woon wal ba tigul jeere ba pes ko pes ko jeere ba il est maam moom defuma dara. sama yoon nekku ci pes pes la pes la rek. dañ laa mbéj da nga koy mbéj mbéj mbéj la rek waaw lex yëpp benn. pes na ko. pesal pesal rek. dee na pes dee na pes ma dee na pes ma. su dee ah da ngaa bëgg ñu pes la doo ci yow pesal ngay raay. pes yi yàgg ngeen ko. non saa neex du nit barke Serigne Touba baax saa neex du nit. No, sen öldün it. Billahi sen öldün it. Yine lan de bariye tahmin liyon diye kalma. Nasıl sen ya? Dövbe alkalik ya. yo yo yo yo cuma cam tenga waksa mamulan masa mabali fetel yingir. lebih, lebih amusak amusak bal yow xam nga fetal bi kee loolu weer yëpp na chachan ta bañ ko defaree ci léegi bal yaa ma dee te léeg-léeg nga tiire mu lànk te sa jëkkër ji sax muusul man defo na di de déglul ti ni mo le pat mo du mo nga xam ne lii amul bal waaye tiital borom tiital lii amul bal daw la woon na baayam na nga dal ay yaay papa lii amul bal amul bal te di en seen làmmiñ ni yéen ci meddi mi wala nan sama lëwër weru maam bi amul bal noppi leen rek maa laaj leen maa ne amul ban. xamoon nga ne ni amul ban. xoolee xoolee xoolee Dieynaba xoolee Dieynaba ñu defee nii Dieynaba taal mii tamit ngir yàlla xoolee Dieynaba xoolee Dieynaba ni mu defee nii xoolee. xoolee xoolee. sëñ waaye du ma ko laal waaye Dieynaba taal. Oh, gis naa nag ñu may déclaré guerre naan bàyyil Dieynaba taal bàyyil ma jë bàyyil Dieynaba taal Dieynaba taal mii du ma ko de Dieynaba taal mii. loolu taal mi su ma amee million dëgg dëgg dëgg tey tànkam laa jëm de xaw ma ku koy takk na waaye nan la cee dal sama gars yi li fa nekkoon vidéo bi ma seetaan séquence bi ma reetaan ba sonn ma ne non lii faa ma indi ko fii ñu seetaanandoo ko yaa ma gën a xam abonnez-vous aimez partagez wa ilal liqa ba beneen yoon sama gars yi kontaan naa ci yéen de barki yàlla di ngeen di aimé samay vidéo di ko commentaire di ko partage kontaan naa